Promoville nag ci ci ci ci fàttali bi ko président Macky Sall di lancer fi ni ci biir Rufisque la ko lancé tànneefu ville Rufisque nak def am lu mu wundu deuk bu emblématique la deuk bu bu am cosaan la motax tax mu lancé fi promo ville en 2016 yalla mi nga xam dara tëwu ko tey ci en matière de réalisation ci biir Rufisque ak Bargny commune de Bargny so xaymaa tay luy tolok 9 km defal promo ville defal nako ci biir ñaari ñaari ñaari ville am na njort nag ak linéaire bi nga xam ne mooy euh, linéaire Maurice Guèye avenue Maurice Guèye te yéen ñëpp ngeen xam njëriñam ak importance am am na njort ak yàqin su paree dina changer euh, dëkku Rufisque bu baax a baax comme ni ko waa Rufisque di xaare mais parallèlement aussi ak avenue bi xam ngeen ne am na kanal bi nga xam ne mooy canal ouest fii ñu nekk nii mu nekk kanal boo xam ne ay jafe-jafe yu méttee métti yu tar moo fi amoon avant ñu koy door nam ci réalisation yi kenn ku ne ci yéen constaté woon na amoon na ay euh, jafe-jafe ba mu xaw a yéex ba mu xaw a taxaw loolu tamit il faut ngeen comprendre que ne taxawul parce que Promoville bëggul bouger déet dafa taxaw parce que dafa am li ñu naan des contraintes objectives dafa am ay réseau yoo xam ne ay concessionnaire lay mooy Sen'Eau mooy Sonatel mooy yeneen ak ñu mel na ñooñu à chaque fois fu ñu dévoyé ba ñu gis loolu automatiquement yooyu dañu xool naka lañ koy gérer loolu dafa nekk loo xam ne Eh, travail de titan moy tang mon ko dépasse sante yalla bi ñu dépasser lool non sante yalla aussi bi population bi nga xamne mom moy population bu rivis nango andak projet bi parce que nak duma len nak amna ño xamne taxawon nañ fele bëgg xëpp suuf ci li nga xamne mom la état bi di liggéey pour de raison ça ne m'intéresse pas mais le plus important une ligne ñu amal solo mooy président def nañu liggéeyal leen askan wi parce que askan wi le reste euh, on en a profité de cette journée pour non seulement lancer les travaux au niveau de Tivaouane presque luy 2,3 km Tivaouane zone c'était une zone enclavée à tout point de vue qui ci population euh, sant nañ ci président Macky Sall kontaan nañ ci aussi ci acte yooyu ñu ngi ñaan yàlla mën ko inaugurer avant hivernage bi ñu jógee foofu aussi def nañu biscuiterie yi biscuiterie yi aussi euh, li fa am moom mooy euh, programme xëyu ndaw ñi président Macky Sall moo waxoon bëgg na jox luy tolloog 65000 jeunes doomu réew mi ay emploi ci biir loolu mu am lu mu jël cërale ñu ñun en tant que Promoville en tant que ministère en charge de l'équité territoriale mu ne ñu 2000 emplois laa bëgg fii ak 2023 tey ci tey mën ne jeunes recruter nañ leen former nañ leen ñoo au niveau des entreprises waxuñ nag tout est rose parce que nag euh, liggéeyu jaamu yàlla la liggéeyu jaamu yàlla c'est tout à fait normal mu am lu ci baax mu am lu ci jagadi mais le plus important et surtout ce qu'il faudrait dire c'est que ça a été un investissement important une enveloppe de 20 milliards presque a été injectée au niveau des villes de Rifus avec la commune de Barny. L'eau, ce n'est pas négligeable et nous espérons très prochainement pouvoir réceptionner ces activités